Euh, donc tey nag ñu dalal fi ñaar kenn ki nag di El Hadji Mamour Mbaye euh, bat géwél Thiès day ñëw ci li nga xam ne rek euh, moom moo di li nga xam ne rek moom la sa sama papa tey ci lan lay ñëw. <laughs> yaa ko war a laaj bi nga wax kañ ci li war a ñëw opposition bi bi dafay ñëw ci li nga xam ne rek moom li Macky président Macky Sall woote buñ ci jógee nag daal di ànd ak ngañ bawal bawal ci arrestation yu métti yi mu nekkee dugg bee génn bi donc ñu dalal ko ko nga xam ne rek moom moo di El Hadji Mamour Mbaye bi nga xam ne dafay jóge Thiès jàdd Dakar jàdd Mbour doogu ñëw dakaar nuyu nañ la Mbaye daane. waa maa ngi lay fay euh, Soukeye. Mm-hmm. waa di rafet lu baax nag invitation bi. waa di kontaan. Mm-hmm. waa di nuyu Omar. macha allah dadi man di di di uh-huh. baax nag soxna si waaw macha allah Thiès la dëkk uh-huh. waaw ma nga dëkk r du foofoo jàmm gën ndeysaan ah waa ñu ngi lay nuyu waa di nuyu ñëpp nag di sant ñëpp di gërëm uh-huh. saf ah, na waaw macha allah waaw waaw yow ma ne soosu Korité gi saf na man dama ne wax sax di war nañ cee yekkal président waroon nañ ko cee mosal. président Idriss ba nit yi ah. fa Idi di rootee fa la rootee ca Macky lay rootee fa la ñuy rootee ñun du ñu root mukk ci ka ci Idi. na dem ñu ne moom xamul fu muy teg tànkam. waaye yi laa wax macha allah su tey saa lay nuyu. ah. isaan moo tax it ba dama ne ko bi yoon loolu lakk du doy. dëgg la soos bee saf dañuy capp téen waaw. macha allah waaw am na lépp lépp a nga teew su koy fruit ba. waaw mayonnaise ga. moo ko ci liix ah su koy pombiteer ak mayonnaise a ànd aywa jublul ci liggéey bi mbaay. tey man fàtte li la war a laaj. waaw déedéet kay. <laughs> aywa. expliqué comme yow que li mu wax dafa foor. nii la papaam di wax. non non non li mu def li mu wax dafa am. na bar waay. day maay noo gisee dialogue bi. ah dialogue ban. dialogue dialogue bi nga xam ne président Macky Sall moom la wooy opposition. waaw réew mi nag dañ ko war a xajoo bokk ko. Uh-huh. dialogue bi na wax Sonko Sonko na dem wuyu <laughs> Sonko. na dem wuyu ji. waaw. ndaxte dialogue bi. bu ci Sonko amul du dialogue na nu dëgg moo xew. dëgg la waaye nee naa président Macky sàll Sall ngaari lam toor alwaar bur gédé bàyyi ñëpp tekkil lam yi. tekkil jéng yi tekkil jéng yi. <laughs> président di ko woo ngir jàmmam ci réew mi jàmmam ci réew mi dialogue bi dialogue bi Sonko li waa ji doon wax rek la. dialogue bi dialogue bi Sonko. Mhm. dialogue sans Sonko du dialogue. président xam na ko. Mhm. <laughs> ndaxte bu ko Assane laajee. xamal na ni ku gedd sa yaay kafee ko. fo mhm. foo la doon def. nit ñi nag ñu ngi koy jël di ko interpréter ndéwénal mu ne ku gedd sa yaay loolu waxin la rek. loolu fi lañ ko fekk fi lañ koy baax. moo tax nuy wax Sonko. waaw. kon kay président Sonko ñëwal. wuyul dialogue bi wuyul ki lay woo. kii lay woo. Sonko wuyul kii lay woo moo la war a woo ni wuyul kii lay woo. Sonko neel naam. Eh. neel naam naam. ndeysaan. Sonko neel naam. wuy wuyul kii lay woo waaw. Ah! Ah, léegi Macky Sonko rek la woo. dëgg la yàgg naa jàll ko di. Eh, waaw papa moo wax ci nag waaw ñëwal. dama gis waaw ah Jalle démb ngay te am nga. am nga bàkk boo xam ne day boole. am na am na bàkk bi tas waaye am na bi boole. indi nañ maasoo Mbaye jarab bi doxul. waaw ñu indi Mbaye peex bii yoon nag. nan la indi. tamit 203. waaw sabar yi daaw sabar yi daaw la dana indi sabar mbëng mbëng tungu ne dafa am dëgg moo xam ne moo mën a boolewaat Macky ak Sonko ñu juboo te xam nga tëgg mi. <laughs> di ko may ñu bari ñi nga xamante ni bi ñu ngi bii tànkaadu laal bi la ñuy moo indi ay wi ci dëkk bi. Ah, bii tànkaadu laal bi moom baaxul moom day taqale. te moom la ñuy tëgg. dëgg la bii laal bi ndax da koy taaj waaw te danoo war a laalante nag tànk ngir Macky Sonko àndandoo tëgg boobu man rekk a ko xam te duma ko wax nag mukk ñu may sàccaat. dëgg la comme nañ la sàccee woo sàccoon nañ ma sama tëgg duma ko wax mbéy gee fee ngi ne copp di déglu. <laughs> di xaar ma wax ko la mu dugg ko. du ko nangu RTS ah, déedéet nag ba tey. Euh, nan wax ci dialogue mu ngi xuloo mi ngi ci bi mu waaw di ñu ngi ci dialogue bi dialogue bi nag dañu ko woote di wax président Macky Sall. Sall ngaari lam toor war arwaar bur gede mm-hmm. mën naa koo organiser bit seb dialogue bi na ko jox. Eh. liñ ciy laaj bariwut. ñaata ñaan yiñ ci war a ñaan ngir Sonko eh. ñëw. sëriñ yiñ ci war a fay. <laughs> ngir Sonko ñëw. bi ma ko calculé waxaale naag ay sëriñ yoo xam ne macha allah. sunu borom may na leen. loo xamante ni bii buñ ko defee sonko ñëw. waaw. bariwul xaj na ci état bi. ñeent fukki million. ñeenti potu mayonnaise. <coughs> waaw mayonnaise moom mën naa ko indi. te mën naa la ko defal sama loxo ndax moom nga bëgg sarax bi loolu la ñeent fukki million ak moom ba la bëgg sëriñ ba muy laaj leer na nee na ma uh-huh. ban sëriñ ñeent fukki million sa sëriñu bopp la <laughs> su ñeent fukki million ñeenti poto mayonnaise jubóo ko macha allah kon mi ngi wax ni président Macky Sall woote bii mu woote ngir yàlla sonko wuyul wuyul ki lay woo. ndeysaan woo. Hmm. wuy wuyul ki lay woo yow la wala woo di wuyul ki lay woo. da nga mbaay wuy wuyul ki lay woo sonk wuyul su kaa dese ngaa ngéwéle loolu moom am na moom mbaay da ëpp da nga naan wuyul ki lay woo waaw moo la war woo oh, wuy wuyul ki lay woo oh. waaw ne wuy wuyul ki lay woo. waaw moo la war a woo. Sonko wuyul ki lay woo. wuy wuy. saa yoo bi nag papa nag mbaay ji wuy ji dafa metti wuy ji da nga koy xëcc. wuy wuyul ki woo. wuy la war woo. wuy wuyul ki lay woo. <laughs> jërëjëf mbaay jërëjëf yàlla nga gudd fan. yàlla nga fi yàgg lool te wér macha allah jërëjëf mbaay daane.